xalimaam ga fi kenn gënu kenn waaye nit nitte li ñu bokk tax foog ñu nekk benn léppi ñëpp lu ne ku ne nga ca kon réew mi ci nga bokk te liñ mën a séddoo mooy Sénégal kon moo ñu def fii mbook rafetul tur fi sa mbalit mi naan ñu mbeddum buur e rafetul sànni sa médi ci canal bi naan ñu mbeddum buur nawet bi ngi ñëw yàlla ndox mi wàcc te bañ a ànd ak ñuy sàmm yoonu ndox mi ku ne war na laa maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën dël onoon sug na ca teel te giy pexe fegu jëm na wet jongir yee salaat réseau bi ndax kaaraanga gi nekk sa wet ñu ci région yëpp di def opération pré-hivernage débouché canal yi ndax mën mi bañu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee duñu ko muñ ñu dakkal branchement clandestin yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi kondiri ñun ñoo ko bokk e nañ ko sàmm waay na ku ne sax ci li ko war mooy jàmmi ñépp waay maam yàlla may ñun famille wala ngaan ndox mi wàcc fépp naa too ànd ak jàmm la ñuy ñaan onos mu ngi ci fel bu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc fépp naa too ànd ñuy ñaan onos mu ci fel bu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd jube nawet li yëpp ci askan wi tiit ONAS a ngi def wareefam mais foog ñenn ñi nekk nit sekkar ñi kanaal yi defar ba mu baax ne ko ràpp tëj ci sàcc kubéer ki sotti ca balit mu indil ñu mënd lépp lëj kondiri buñ ko fàttee mu def bouchon ndox mi génn salte def tata suñu buntu kër yi indil ñu problème mu ay na yowén jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau mais ONAS am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan Orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën da maam la may ñu ndox ba muy wala ngaa def bouchon ndox mi génn salté def tata suñu buntu kër yi indil ñu problème mu santé ay na yowén jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau bi mais Orange am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan olance mu ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax mu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan olance mu ci fegu ba ñu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee dunu ko muñ ñu dakkal branchement clandestin yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi kondiri ñun ñoo ko bokk e nañ ko sàmm waaye na ku ne sax ci li ko war mooy jàmmi ñépp waay maam yàlla may ñun ndox ba muy wala ngaan woon ci fépp naa too ànd ak jàmm la ñuy ñaan onos mu ngi ci fegu jëm nawet yi jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy ci fépp naa too ànd ak jàmm la ñuy ñaan onos mu ngi ci fegu jëm nawet yi salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd bu ñu jubee nawet li yëpp ci askan wi tiit onos a ngi def wareefam mais foog ñenn ñi nekk nit sekkar ñi kanaal yi defar ba mu baax ne ko ràpp tëj ki sàcc kubéer ki sotti ca balit mu indil ñu mënd lépp lëj kondiri buñ ko fàttee mu def bouchon ndox mi génn salte def tata suñu buntu kër yi indil ñu problème mu ay na yowén jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau bi mais ONAS am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ndox mi wàcc fépp naatoo ànd jàmm la ñaan orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd bon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax kenn ku nekk fi nga nekk ñu fekk la fa jox la loxo nuyu la ziar la jaajëfal la bu baax a baax di tàmbali suñu kàddu ci dèjà di nuyu xalif généraux yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di tàmbalee Touba sëñ Mountakha Mbacké Bachir di ko nuyu di ko ziar di ko jaajëfal donc di dem Tiwaawan di ziar sëñ Babacar Sy Mansour Euh, de nuyu ko ziar ko papa euh, la famille omarienne di nuyu euh, d'Arabie, bi di nuyu Koki wa Pire wa jamal nuyu Cheikh Aliou souane di nuyu ensemble di sénégalais dans leur ensemble de aussi euh, nous tuddu sax wa parce que parfois damay wax suñu gaay yo xamni fa lañ bokk euh, di nuyu ñi nga sénégalais lañ aussi l'église euh, l'église bi nga l'église l'église dans son ensemble donc di nous nuyu di ziar di bu sénégalais dans leur ensemble di di aussi ni euh, euh, dañuy les léeg ni ñii dañuy am les la vie est ainsi faite c'est des hauts et des bas la justice aussi est ainsi faite euh, de tout le temps avec de likki mais l'essentiel li ci a que sénégalaise indépendance je pense que juge nous juger chaque jour nous nous nous ay nous nous ay sous contrôle judiciaire nga ñaan donc voilà donc tout cela participe vraiment ci li nga xamanteni moy Sénégal rew la bo xamanteni les choses fonctionnent normalement sauf ki nga xamni nak dem nga dem nga daanu tay tay tay tay suñu avocat dem nañu daanu sen avocat barki dem dem nañu daanu yàgg naa ko wax tilkal ayyam nu daa ha bayna nas tadi ko non à la adna la bi demé maintenant nak kenn ku nek na respecter Sénégal rek euh, ñu gëm ni euh, yon dal yon dal nonu la parfois nga dem gagner parfois nga dem perdre procès parfois nga dem li, parfois nga dem là loolu moo tax yoon ubbi ay voies de recours sàcc bi dugg kër jàmbur sàcc sax ba mu lekkol leer yàlla dafa sàcc bu demee police naan du man ba keroog ñu koy tànc bopp ba mun a man la bu demee tribunal aussi ñu àtte ko mu a d'accord ma ne def appel te moom leer ko ni moo sàcc donc loolu dafay am te leer na avocat bi koy layal ne moo sàcc mais da koy layal rek parce que loolu lañ koy fayee donc loolu aussi dafa jar di dafa jar di bàyyi xel bu baax a baax mu mel ni bëri na lu daanu tey ci réseaux sociaux bi euh, nit ñi kenn ku nekk yaa ngi wax ñii di jubilé fii daa mel ni nga dugg benn koñ rek donc voilà kër gi léeg-léeg day am naqar kër gee am bànneex et c'est comme ça que ça se passe maintenant mais li ci am solo maa ngi ziar waa TikTok euh, Abdou Khoudous maa ngi lay ziar bu baax a baax gëj nañ la gëj naa gis lool temps yi TikTok lu mu xaw a gëj nag donc voilà di di ziar waa YouTube di leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di ziar aussi waa Facebook bi yëpp dans leur ensemble. di ziar suñu sœur yëpp ñi nga xamante ni ay activistes républicains lañu di féliciter suñu sœur sister Maguita Ndiaye di di ziar di ziar bu baax a baax ñoom baax yaay di ziar ñoom Adisa Maki di ziar ñoom Mamadou Guèye ñoom Jibril Samba di ziar ñoom Wilane di ziar ñoom euh, moom euh, nu mu tudd sax euh, Mandione Laye dina fa dugg léegi incha allahu taala par rapport ak boo xam da koy def di ziar sama ñoom yaay Nafisatu di ziar sama ñoom si jigéen ñoom Ndeye Camara di ziar ñoom Nana Cissé di ziar sama jumelle Oumou Ndiaye di leen ziar ñu bëree bëri bëri di nuyu nuyu aussi activistes républicains dans leur ensemble ku lim dans damay bañ lim nek fi di mais maa ngi leen nuyu bu baax de baax di nuyu suma système Magita Ndiaye di nuyu Anita Diop mi sank euh dellowaat les macaques dans la toundra di leen nuyee ñëpp di nuyu suñu groupe whatsapp yëpp yi nga xamante ni dañ cee bokk donc di nuyu waa JUR bi nga xamante ni ñi ngi def liggéey bu ama am solo di nuyu les authentiques de l'APR di nuyu ñi nga xam ñoo jeunesse Macky di nuyu bloc des républicains di nuyu groupe de travail bi nga xam mooy euh, baatu dëgg di nuyu ànd penco Sénégal di nuyu les sœurs de Bah di leen nuyu di len ziar bu baax a baax di nuyu soutenu Amadou Ba di nuyu soppe Cheikh na Cheikh Sadbou di nuyu Macky kesse pas de leader di nuyu APR Pikine Ouest di nuyu wa mouvement dundé yakar ak Amadou Ba di nuyu les défenseurs du président Amadou Ba di nuyu ñi nga xam ñoy activistes républicains di nuyu donc moy sama groupe di nuyu ñi nga xam ñoy mouvement Marème action sociale di jaajëfal les avocats de l'État ci liggéey bu am am solo bi nga xam ne ngi koy def di nuyu kulluhum nuyu Facebook nuyu TikTok nuyu YouTube nuyu na ñep ziar na ñep di nuyu sax opposition borom ndam am ndam tak rek ñu <coughs> ngay ki rek ngay jubilé bon voilà donc waxo dafon nañ live sank ñew ci mbir yu ama am solo fi may ñëk tambalé moy presse sénégalaise bi nañu dimbali ci euh, donc euh, Ousmane Sonko réintégré il n'est pas réintégré soyez soyez vraiment honnête ni ngeen titrer affaire yi c'est pas ça Ousmane Sonko n'est pas réintégré c'est un tribunal d'instance qui a ordonné sa réintégration le tribunal d'instance ordonne la réintégration mais Ousmane il ne l'est pas parce qu'il n'est pas réintégré C'est ce que je veux dire. C'est cest à que maintenant concernant procès de xam c'est-à-dire que euh, tribunal de dafa defoon até bam mu até maintenant dama bëgg ñëw ci bayilo gaay xel euh mu tudd sax par rapport à li nga xamanté mom le moom la cour suprême waxon ma ngi lay mom le cour suprême mom le cour suprême waxon dama leen ci dama leen ci jukkil ma liral leen ko donc ma liral leen ko donc euh, voilà donc euh, pour ngeen xam lan moo tax maître Bamba Cissé doon wax nan bon voilà donc euh, euh mu tudd sax mbir mi jaru gaay dem pour pourvoi euh, cour de cour euh, nous euh, du Sénégal au nom du peuple sénégalais envoyez moi la grave grave cour suprême chambre administrative la montagne cour suprême chambre administrative d'abord am chambre pour chambre administrative là mais am chambre am chambre criminelle la bien nous ñu def cour suprême chambre administrative là pourquoi parce que le dossier est administratif Moi, le live amna ay jamono mané len filtre yi dafa am filtre administratif mo jitu mu am filtre judiciaire mo ci top mu am filtre juridique mo muju parrainage ak damay jël sama fiche de parrainage do ko jël dama koy jël do ko jël lutax dama ko jël bokoto nga ne d' accord ma ne bokkatuma mu ne demal fa ma xam ne doo nga dem ne ginaa bu Ousmane Sonko fi la bindo dañuy laaj lutax ñu rajé c'est administratif ça n'a rien de pénal maintenant juge bi c'est un juge administratif moo tax bu ngeen seetloo que dañuy bindal ni euh, ginnaaw ba ñoom sax moom loo wax ñu ne la da que fen a Nous ba ñuul ñu Nous ko ñu def nar ko def que jël suñ def donc Sénégalais yi xam ñu benn bennal ko rek nag ba jubilé nga jubilé parce que cardiaque cardiaque dafa yomb donc voilà donc euh ma yónnee ko régie donc voilà nous gis li nga xamante mom mom la mom lay lire ni parce que loy wax tek qui sa beut donc voilà yónnee naa la donc République du Sénégal au nom du peuple sénégalais Cour suprême chambre administrative audience publique spéciale du vendredi 17 novembre 2023 entre État du Sénégal poursuite et diligence en la personne de l'agent judiciaire de l'État, en ses bureaux 6 au ministère de l'économie et des finances, Building Petavin, avenue de la République, angle 4 euh, à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Elaj Abdou Sal, Maître Abdou Khan, Maître Elaj Mustafa Diouf, Maître Abdou Diali Khan, Maître Samba Bitey, Maître Souley Makodou Fall, Maître Adama Fall, Maître Ousmane Cham, Maître Amadou Yeriba, maître Ndeye Anta avocat à la cour suñu jambar yi ñom la gañe d'accord nanu demandeur d'une part et Ousmane Sonko ayant pour conseil maître Kawsu ubbi leen seen nopp danoo bari dé maître Kawsu Bodian ndijaayam la maître Ousmane Fall maître Massokhna Nakan, maître Siré Clédor maître Cheikh Khoureyssi Ba maître Théophile Kayosi maître Martin Diatta maître Mako Dundour, maître Youssoufa Kamara maître Joseph Etienne Ndion maître Khadi Kamara maître Amadou Diallo maître Juan Branco maître Larifou Saïd maître Guy Hervé Cam maître Patrice Tassita, cabinet Bourjac maître Henri Valentin Gomis maître Mohamedou Bamba Sissé, maître Ousseynou Nungom, maître Emmanuel Diata, maître Baba Karnia, maître Abdou Aziz Djigo maître Ndoumbé Kan Ndoumbé Wan maître Gibi Diagne maître Magna Brice Silva maître Abdoulaye Tal, maître Baba Ndiaye maître François Kanjak Senghor maître Bamba Fall maître Moussa Balde, maître Abdinar Ndiaye maître Fode Ndiaye tous avocats à la cour mais Elisa domicile en l'étude de maître Mohamedou Bamba Sissé au 38 avenue Mali, ici à Dakar défendeur d'une part d'autre part kon ñii ñoo doon jàmmarloo tey fa lañ doon jàmmarloo ci chambre administrative lañ doon jàmmarloo bu cour suprême kon euh, nees koy waxeeti donc am na chambre administrative wax naa lañ ko am na chambre criminelle fa lañ ko yóbbu woon chambre criminelle maintenant bu ñu wéyalee ci li nga xam moom la ñuy waxtaanee par rapport ak nu mu tudd sax euh, voilà le dossier de Ousmane Sonko la bon pour nit ñi mën a mën a mën a am lu leer par rapport ak li nga xam ni moom la cour suprême waxoon ba kase c'est li juge Samba si le yóbbuwaat leen kii euh, cour d'appel madame, le tribunal bi euh, des fois tribunal de grande instance au cadre de Dakar c'est-à-dire tribunal de première instance de toujours pourquoi parce que tribunal de première instance mooy def office de office de voilà donc mu euh, sur la recevabilité du pourvoi attendu que Ousmane Sonko a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif d'une part qu'en vertu l'article 2 du décret 70 12 16 du 7 novembre 70 portant création de l'agent judiciaire d'État, le domaine d'intervention de l'agent judiciaire de l'État, en ce qui concerne la représentation de l'État, se limite à la matière judiciaire et ne saurait s'entendre au contentieux électoral régi par la loi. gis ngeen fii ñoom seen bop. ñoom seen la wax ci recevabilité pourvoi bi agence judiciaire d'État Nous sommes seen bop. ñoo def différence entre le civil li nga xamanteni mom moy mom moy mom moy mooy affaire bi donc motax me mu ne Ousmane Sonko dafa soulever ni agent judiciaire de l'État mënul dem di layok mom pourquoi parce que tout simplement agent judiciaire de l'État dans le domaine le domaine d'intervention de l'agent judiciaire de l'État fi nga xam agent judiciaire de l'État lo wara def en ce qui concerne la représentation de l'État il la représenter État c'est limite à la matière judiciaire et ne saurait s'étendre au contentieux électoral donc mbir contentieux électoral là, du mbirum judiciaire kon loolu leer na ñoom ñoo ko wax mais loolu seeni wax la mais agent ça, moom mën na mën na représenter état neex mais on continue foofu ñu ne ko c'est-à-dire que euh, ñu dem ba ci kanam mu ne <coughs> sur le deuxième moyen en sa première branche tiré de la violation des articles 822 et 823 du code de procédure civile de pénal du code de procédure civile CPC en ce que l'ordonnance attaquée a retenu que l'exploit d'huissier n'a pas valeur de signification régulière au motif qui résulte du récépissé de la poste que la lettre recommandée tendant à aviser Ousmane Sonko du dépôt fait à la sous-préfecture de Dakar Plateau a été adressée à Dakar, à la cité Kër Mermoz Dakar. Corps, selon les propres déclarations, selon les propres déclarations de l'huissier, c'est à cause du défaut d'autorisation du greffe de la prison de Sébikotan qu'il n'a pas pu accéder à Ousmane Sonko. Ouvrez les guillemets, madame, je cite, la personne intéressée, Ousmane Sonko. Fermez les guillemets. Qu'en omettant d'adresser la lettre avec accusé de réception, là où se trouve effectivement Ousmane Sonko, la personne intéressée, l'huissier n'a pas respecté les dispositions susvisées, qu'il convient de distinguer L'exploit qui peut être servi à domicile, euh, à domicile, en mairie ou au chef d'arrondissement de la lettre recommandée pour avis qui est destiné à la partie intéressée. En l'occurrence, Ousmane Sonko. Que l'exploit ne peut atteindre son objet, alors, selon le moyen qui ne résulte pas des articles 822 et 823 du Code de procédure civile, que la lettre recommandée avec, avec accusé de réception doit être adressée à l'endroit où se trouve effectivement la partie intéressée. Que le régime des nullités des actes de procédure reposent sur la règle, pas de nullité sans texte, pas de nullité sans greffe. Qu'aucun grief n'a été invoqué ni dans la requête introductive d'instance, ni dans les observations subséquentes du requérant, et que le juge s'est gardé de rechercher un grief résultant à de l'illégalité dont il a fait état. Qu'aucune violation d'une formalité substantielle n'a été relevée. Et sans qu'il soit besoin, le suprême et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches et moyens vu les articles 822 et 823 du Code de procédure civile. Donc, nous continuons. Donc, euh, nous euh, continuons. Et attendu que, pour déclarer la signification irrégulière, le premier juge, Mme Sabassi, a énoncé qu'il résulte du récipice de la poste que la lettre recommandée tendant à aviser Ousmane Sonko du dépôt fait à la sous-préfecture de Dakar, Plateau, a été adressée à Dakar, R17 à la cité Gorgui, Mermoz, Dakar que selon les déclarations de l'huissier, c'est à cause du défaut d'autorisation du greffe de la prison de Sébicotane qu'il n'a pas pu accéder à Ousmane Sonko, la personne intéressée en l'espèce, puis relever qu'il faut distinguer l'exploit qui peut être servi à domicile, à mairie ou au chef d'arrondissement de la lettre recommandée pour avis qui est destiné à la partie intéressée, en l'occurrence Ousmane Sonko, et retenu qu'ainsi, en omettant d'adresser la lettre avec appui de réception, là où se trouve effectivement Ousmane Sonko, la personne intéressée, lui, ci n'a pas respecté les dispositions susvisées, qu'en définitive, l'espoir ne peut atteindre son objet. Son Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté d'une part qu'étant à Dakar R17 à la Gourgui, Dakar, à la maison de Ousmane Sonko, et n'ayant pu servir l'acte L'huissier l'a déposé à la sous-préfecture de Dakar Plateau et d'autre part, qu'il résulte du récépissé de la poste que la lettre recommandée tendant à aviser Ousmane Sonko du dépôt fait à la sous-préfecture de Dakar a été adressée à Dakar R17, à la sécurité Gourgui, Mermo Dakar. Le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Ni le cours suprême ne sabbat failli, c'est-à-dire le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qu'en ajoutant à la loi une condition relative à la remise de la lettre commandée là où se trouve effectivement la première intéressée, il a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, qu'il s'ensuit que la cassation est encourue. a un paragraphe bii nga xam cour suprême moo ko dindi moo ko bind atte ko mu qui est mbirum radiation Ousmane Sonko ndax huissier bi jox qui est wala jox ko cour suprême chambre administrative d'abord, le juge Sabassi quand quand statuant ainsi vous après avoir constaté ginnaaw bi nga d'une part qui est en à Dakar Ousmane Sonko Mingi Dakar R17 c'est gi mu Mermoz à la maison de Ousmane Sonko et n'ayant pas pu servir l'acte l'huissier l'a déposé à la sous-préfecture dem na fekk ko fa huissier dem déposé ko sous préfecture Dakar Plateau et d'autres parties, part ci beneen mu ne qui résulte du récépissé de la poste que la lettre recommandée tendant à viser Ousmane du dépôt fait à la préfecture de Dakar a été adressée à Dakar R17 à la sécurité de Gorgui lettre biñ ñu jaarale poste yi bañ ko dougalé foofu fuñ ko R17 Mermouz, Sacré-Cœur mu ko donc euh mu tudd sax ci li yeb premier juge bi maanaam Sabassi Faye il n'a pas tiré.

il a méconnu le sens et la porté des textes susvisés bu fekkee ni moom da dol ci yoon moom Sabassy Faye ak kull ku mën a àtte jaar fi mu jaaroon gisaguñ na notification bi mais dafa ne à la remise de la lettre recommandée lettre bi nga xamni dem nañ fekk ñuko fa nga dem ci Bamba Cissé ñom ñëpp ñu ne fi ñu élire résidence ñoom avocat Ousmane Sonko li leen fi yépp fiñ ko élire moy ci Bamba Cissé ñu dem fo mu na dem Ousmane Sonko huissier de justice bi xamné ñi ñii dañ ko bëgg foo dañ ko bëgg manam foé mu jëm sous préfecture dépose ko fa dem poste déposé ko fa Ousmane Sonko fu mu ne mu fekk ko fa cour suprême nee juste juge Sabassy Faye la mu wax moom la mu da ci dara dara dara dara donc il a méconnu d'a xamut wala mu xam ñàkk xam-xam le sens manam yuq gana a ga war a nekk la xam ak la mu jubluwaay bi nga texte yi nga xam texte droit la moom la jublu ci donc ci yep, cour suprême ne kii s'ensuit mu ne ci li wax ni yëpp ci radiation wax coco, ko ko wala wax ko ko wala donc dans ce cas la cassation est encourue Madame la nga àtte dañ koy jël lem ko ba mu njëkk sànni fële par ces motifs ci lii mu wax ni Cour suprême déclare nee recevable le pourvoi formé par l'État du Sénégal le du Sénégal di être a ni muy pourvoi bi fam jaar na woon fa woon ñëwoon fa woon nañ ko defee woon rek dem dikk à dem donc déclare recevable le pouvoir formé par l'État du Sénégal déclare le tribunal d'instance de Ziguinchor compétent il est compétent mais il a encouru li nga la cassation parce que tout simplement le juge premier juge Sabazifay, Faye a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ça c'est clair dof dof lu moo fi nekk ak bëgg réeral Sénégalais rek mais xam ngeen ne seen ndam nous avons, kii la sax avons le final la beau jël coupe ñu ne final war nga jël coupe nga sécurité par pratique occulte dañuy nanguwaat bi rek donc casse et annule l'ordonnance numéro 1 du 12 octobre 2023 du président du tribunal Nangam Sangam renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar pour y être jugé conformément à la loi donc mbir jàppal leneen yegg ci cour suprême donc lolu moy li nga xamni mom la bëgg tambalé motax tax ca noona avocat état bi ñom yéexaluñ ko def nañ communiquer communiqué bi nak limu wax na bi limu wax na bi communiquer bi limu wax na ñu né par lettre numéro triple zéro sur ministère de la justice sur cap en date du 11 juillet 2023 Bible attends attends non c'est pas ça c'est pas ça donc voilà donc bii communiqué non bi donc le président du tribunal le, le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar vient d'ordonner la réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales malgré l'arrêt de la Cour suprême en date du 17 novembre 2023 l'État du Sénégal se fondant sur les dispositions pertinentes des articles L45 et suivants du Code électoral, entend user de son droit de recours par l'introduction de pourvoi en cassation. En conséquence, la décision du tribunal d'instance de Dakar n'étant pas définitive ni exécutoire, Ousmane Sonko reste radié des dites listes jusqu'à ce que la cause soit définitivement jugée. Fait à Dakar le 14 décembre 2000. 23 le collectif des avocats de l'État dañoo neexalim sax maître Ndeye Anta maître Moustapha Mbaye El Hadj Diouf Aboubacry euh, nu mu tudd sax Aboubacry Aboubacry Aboubacry D donc maître Adama Fall maître Amadou Yeri Bah. donc voilà mi ngi noonu avocat état bi nee président tribunal d'instance hors classe bu Dakar nee da ñeu atta àtte tey ne dañ jàllawaat Ousmane Sonko ci liste yi nee lool loolu yëpp mi ngi ko def nak fekk ne amna cour suprême bi mu leen limal légui ah arrêt bo xamni ni defoon le 17 novembre 2023 arrêt boobu lañ jëm pour leeral leen ko le 17 novembre maintenant ñu jëm ci communiqué bi nga xamni nak mo moo Ousmane Sonko Seigne Saliou Gueye mo dàq fen ci Sénégal et il est dangereux billahi wallahi taala Seigne Saliou Gueye est un fiefé menteur un sale menteur wallahi azim un lâche boo maanaam booy deug booy deug le terme lâche Saliou Gueye est un lâche parce que tout simplement lâcheté Westwood maanaam nga nga gis dëgg taxaw di manipuler moo tax puy puy dañ ko war a ñaan yalla yalla yàlla guddal fanam mais Saliou Guèye mo dàq fen ci Sénégal man tur bi rek ma miti mais loolu Guèye la chose Guèye la mo dàq fen aduna bi motax tax journal mënut lu yor yor parce que màggatum yor yor moy magat yooyu nga xam dañuy nek yor yor ci pénc mi du këroo kër di fen lay ñu ceeb tan ñu ceeb dëbbuñu passé wuñu manam manam fo len fek magatum yor yor ci mbedd bi lañuy nek di wër di fen rek mom lool la plateau et plateau ndumbelan ma nga ndumbelan ma nga grande gueule ma nga fu nek di wër di fen rek <coughs> donc euh num tuddu euh, sama numéro donc Fatou Wali Tour Mbay euh ma nga woté 78 605 84 24 82 605 24 78 605 24 82 boo defoo après dañu jox sama numéro incha allah donc voilà donc nee na amul fenn fenn fenn fu ñu mën a indi radiation loolu la wax maanaam amul fenn foo xam ni war nañ fa mën taxaw indi fa radiation loolu la wax di ko wax ku ku am vidéo bi dama dimbali yónnee ma sama numéro bi bi bi bi Saliou Gueye di fenn je pense que Khalil Khalil Ndiaye am na ko. Euh, je m'en vais ma tagal len ko c'est-à-dire comme comme ça nit ñi xamne ne dafa mëna a fen c'est-à-dire que euh, mu tudd sax Saliou Gueye moo mën a c'est un fiefé menteur billahi wallahu taala un fiefé un fiefé menteur mais di nga bàyyi fen déggu leen ko degu len ko moy fen fi. c'est à partir maintenant de ça ci la ñuy des notifications de radiation ñi di wax fi ni décision contumace bi ñi wax amul benn décision judiciaire jusqu'à aujourd'hui boo xamante ni nii ñoom Ismaïla Madior Fall génn nañ ko teg ko ci kaw. mais wax na ko de Ismaïla Madior Fall. mais dama ne dama dañ leen a défier leen mais génn leen décision bi loolu kay leer na xam nga bu fekkee ne yow da ne damay tumal nit. pièce nga yore da koy joué annexé ci pièce yi da naan pièce bii moo condamné waa ji pièce bii notification de radiation bi démb ñoom maître Ndoumbe woon lu ñu wax notification de radiation amu fi loolu wax nañ ko waa DG laaj nañ leen ko wax nañ ko waa DAF dañ ne notification de radiation ba tey ji amul yéen a fiy toog naan dañ ko rajo dañ ko rajo waaw d' accord mais léegi ñun jox nañ ñu notification bi nit kay boo ko boo ko rajee même ay ay ay ay dafe ba mu demee dañ leen da ngeen a rajo Ousmane jox leen man notification de radiation bi bu ko fexee su boobaa ñoom ñu xam ne ñuy def mais yow dañ laa rajo ci ay wax alors jusqu'à aujourd'hui mais kon sëñ Sall recours bi ñu defoon Ziguinchor. déglu leen def sur sur quelle base parce que recours boobu c' est les avocats de de. Ah, waaw ñoo ko def waaw ñoo ko def xam naa les avocats de Ousmane Sonko ñoo defoon recours. Qatar billaay Qatar Qatar. sur quelle base lañ ko def. Qatar billaay xaalis Qatar dana wax loolu musiba. billaahi kii lay indiñ analyse yu mbedd sax duñu analyser nii degu len puy xam nga xam nga wax na lii puy mi ngi koy tontu ça à dire puy mi ngi koy tontu mais puy da koy liiral lu leer ko midi ak justificatif yek lepp seigne jall da ko dañ leen di fay xaar déglu ko degu ko rek. Euh, waxu notification gis nga buñ ne administration bu Sénégal joxewul lettre de notification buy wane ne retiré nañ Ousmane Sonko ci ministre de l'Intérieur. gars ñi wax son de. 19 septembre 2023 a génne notification boobu ci biir notification bi ñu ci wax objet de notification intérieure. gars ñi wax son baax numéro 06 P tiré D tiré D4 du 2 août 2023 par la présente l'administration vous informe M. Ousmane Sonko né le 15 1974 à de votre retrait des listes électorales suite à votre condamnation par concurrence par la chambre criminelle du tribunal de Dakar instance. grande c'est pas crédible Et d'ailleurs, question Nous wax la pas crédible crédibilité Ça dit que vous faites que vous ko mais c'est un menteur qui a été mis là-bas pour plaider la cause d'un parti qui n'existe plus C'est ça le problème et malheureusement les sénégalais comme ce qu'il dit C'est Charles Gueye da nga on continue. à deux ans de prison ferme je vous en souhaite bonne réception lettre biki ci adressé nañ ko fépp foo xamante war nañ ko signification. voilà maintenant nous nous disons on on on va aller ginnaaw ba Puy mom dafa lire donc bon voilà donc euh mu tudu sax euh, on va aller maintenant ñu lire le li nga xamni mom directeur général des élections wax ginnaaw bi nga xamni radiation bi leer na mu par lettre numéro triple C'est ministère de la justice sur cap en date du 11 juillet 2023 le ministère de la justice a communiqué au ministère chargé des élections la liste des personnes condamnées à radier ou à retirer du fichier électoral. Se fondant sur cette lettre, le ministère chargé des élections a procédé au retrait du fichier électoral des personnes concernées. Une de ces personnes, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, a saisi le tribunal d'instance de pour attaquer ce fait le tribunal, dans son ordonnance numéro 01 du 12 octobre 2023, a demandé sa réintégration. Sur cette question, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive, l'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. après maintenant xam nga DGE bi ngeen réintégrer la presse sénégalaise DGE dafa clair balaa muy réintégrer Ousmane Sonko lu leer moo koy réintégrer lool déjà on va on va on va on va lire par lettre numéro triple zéro lettre boo xam ni numéro bi euh, ñetti zéro ngay tàmbalee teg ci téeméer ak fukk ak juróom-benn mu bàyyeekoo ci ministère de la justice bàyyeekoo ci cabinet moom ñu rappelé ne cabinet ministère de la justice ay magistrat ñoo fay nekk. ci bis ci datu 11 juillet fukki fan ak benn ci weeru juillet ci atum 2023. ministère bi nga xam ni mooy yàlla wàllu yoon dafa fëgg bataaxal jëmale ko ci ministère bi nga xam ni mooy mbirum élection li mu ko jox mooy liste bi nga xam ni moo def nit ñi nga xam ni dañ leen condamné du Ousmane Sonko kese de liste bi liste nit yi nga xam dañ leen condamné war leen raje génn leen wala ñu raje raje wala génn leen ci liste électorale parce que raje ak génn du benn donc se fondant sur cette lettre maanaam déjà dafa ne lettre bi ñu ma jox nii ci laa sukkandiku pour génne tur Ousmane Sonko ci liste électorale yi kon ci lan la sukkandiku moom ci code électoral ci article L29 alinéa 4 ou bien tiré 4 ceux qui sont en état de contumace wax ji wax ji contumace la wax ji wax ji yëpp bu ngeen seetloo ndax Ousmane Sonko jot na. ci këyit bii koy wane ne génne nañ ko wala jotu maanaam mbir mi question bi nekkul ci ndax na nañ ko wala condamné wuñ ko loolu benn la ñaar bi mooy cest à dof weesu wut nit ki jàpp ne chambre administrative wala tribunal première instance war naa mën a dindi loo xamante ni chambre criminelle moo ko atte tim ko maanaam sut ko tim ko foofu tribunal grande instance mi ngi fi cour d'appel mi fi nangam sangam donc maintenant euh, ni ñu ko waxee sax mbir mi nag fi mu jëm mooy. Euh, gars yi def pourvoi cassation wax naa ko sax du ma si ñëwaat pourvoi bi nak ma nga jëm ci ñi ngi xaar notification juge bi mo mënu ñu wax ci mom juge bi àtte tay parce que xamaguñu ci lan la sukkandiku pour wara mëna génné limu wax tay lolu leer na mais quoi qu'il en soit muy tay muy suba muy ginnaaw suba il a jusqu'à 48 heures pour notifier li nga xam mo décision mom juge bi bi àtte tay bi première instance tribunal hors classe de Dakar bu ko génné nak mom mom agent judiciaire de l'État amna fukki fan kon tey la 14 nga ne 15 16 amna fukki fan manam jusqu'au 26 bu ko nexé mu tok ba le 25 wala ba le 26 le 25 fat la ba le 26 ba le 24 du mois mu dugal li nga xam moy recours bu ko dugalee da koy djébal ñi nga xamante mom moy wa waa cour suprême ñooñu jël kayit bi xol ko buñ ñu ko xoolee maintenant ñoom it ñu toog ab diir je crois que euh, fukki fan la ñoom donc ci bo xamanteni dañuy notifier parti donc li nga xamanteni mom moy né gaay duggal nañ pour nañ ñu prépare cette mémoire de défense ñom ñep après en tout cas 8 jours après 8 jours après ñu jours do a acte li nga xam japp date pour acte mbir donc loolu 10 jours la nga donc nga jël 26 27 28 29 30 31 1er janvier 2 2 janvier 3 janvier 4 5 kon si ku japp Ousmane Sonko war a candidat manam ñaara soit da nga nek ci ngul mu jor soit nga nekk ci mbedd mi mu jóg nekk de amo xalaat kon loolu leer na maintenant réintégrer dans la liste ou bien réintégrer sur la liste des sur le fichier dans le fichier électoral mënul nek pourquoi parce que fek waa demul <coughs> ba mbir mi définitive comme moom ni mu ko waxee ci bu njëkk ba donc dafa ne sur cette question il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive décision définitive amagul dinaa ba amagut nag maanaam fi muy définitive mooy ñu dem ba cour suprême wala pourvoi cassation ba ne li juge bi wax bii yoon dëgg la maanaam dëgg la dañ ko war a dellowaat bu boobaa nag définitive la Ayib Daffé bu ko neexee mu dem bu fekkee dafa fekk nit ko jox fiche de parrainage kooku loolu loolu leer na Ayib bu boobaa mën na dem bu fekkee dafa fekk ku yor fiche de parrainage donc ça c'est l'angle bi nga xamoon nañ ci jàng mbir mi beneen bi mooy. Euh, te loolu defi laa jox de défi dama leen défier mën a leen bu bokkee ma bàyyi politique wéy ci nag nekk sama yëfi bopp mais politique moom dama koy wax bu fekkee Ousmane Sonko bokk na man loolu défi bu ma teg ci pénc bi la incha allahu rabbi donc léegi ñu ne beneen bi mooy euh, nu mu tudd sax euh, comment dirais ci wàllu politique nag la jàngat mbir mi léegi ginnaaw ba muusu leen dama leen xamal ñaar bi jiitu mooy. Ousmane Sonko xam na ne du bokk il le sait wallaahi xam na ko ay avocats xam nañu du bokk ils le savent mais procédure bi ñu enclenché au fait de facto kii bi mooy indi mooy indi kii bi quoi micro bi voilà euh, maanaam procédure bi ñu enclenché si si de facto donc mooy wane ne day bloqué candidature ñoom joomaay bloqué candidature ñeneen ñëpp parce est-ce que c'est c'est c'est euh, voilà voilà très bien c'est réfléchi tey ñu ne Ousmane Sonko dafa war a dem dañ ko wara intégrer intégré réintégré waat mooy nekk candidat bi nangam sax dugulat candidature Bassirou Diomaye mënul nekk xam nga kon bloqué na leen te mu xam ne du bokk kon mbir nga ci bir. Bir miñ ci bir, mais en tout cas li ma xam ba xam mooy dama len dugalal succès Masra succès Masra au fait num mu sax euh, euh waa càdd la succès masala waa càdd la donc lii waaye gis ngeen ma leen dugalal nii nee na day soutenir Ousmane Sonko kam mooy succès masala succès masala beneen ku mel ni Ousmane Sonko la mela ma tuuti succès Masra au fait Tchad la nekk woote woon fi comme ni Ousmane Sonko woote woon woote woon fi comme ni Ousmane Sonko woote woon woote woon insurrection bi Tchad ndaw yu bëri génn dee. billaahi dama vérifier vidéo yi mais yëpp ay am euh, nu mu tudd sax ay droit d'auteur moo tax bëgguma ko teg mais c'est-à-dire woote Tchad boo yu bëri dee mu organiser marché comme Ousmane Sonko doon def boo yu bëri dee mais tey fan la Cissé Massa mujj dama ne di wan li nga xam ne moom la Cissé Massa def actuellement nii mooy que moom ak état bu maanaam moom ak gouvernement transition bu Tchad. dañoo signé li nga xamante accord de réconciliation pour le retour des exilés suite aux événements du 20 octobre 2022 moo nekk nii Succès Massara ginnaaw bi mu reyloo ay au Tchad répression maanaam bu a ay plus plus d'une centaine de booy dee aujourd'hui donc tey mom nangu je ni dina ñëwaat <coughs> Tchad bàyyi lépp dem bok ci gouvernement transition bi uniquement pour dem bok présidentiel c'est la même chose avec Ousmane Sonko ce qui est en train de se passer comme mu yeewul maanaam mooy jeu bi nekk ci biir mbir mi boo xamante ab dof gis ab dof gis ku xelam yaatu nit mënu koo gis mais Mirmi mi mbir mi di raam nii mooy Sonko xam ne demul élection te moom gëm ni du dem élection mais partem aussi narta dem élection pourquoi maintenant moo xam en tout cas pour ceux qui se posent des questions nous tout ça par rapport à ce que xamante ni dit lan bientôt vous aurez les réponses Yakamti, y mais bientôt vous aurez les vous aurez les réponses donc lolo moy li nga xam ni bëggoon wax muy bi moy. condamnation Ousmane Sonko par rapport à la contumace c'est définitif définitive du moins ou pas définitive yéen a ngi toll ci mbirum administration mu def beneen filtre bi nga xam ni mooy casier judiciaire la ñuy laaj Bamba Cissé ak ñi mu àndal lan ngeen fas yéene def ak li nga xam ne mooy casier judiciaire parce que ma mënu comprendre avocat boo xam ne génn nga am ndam ne dañu war a réintégrer seen nit ci biir fichier bi nga génn nga ne même sans fichier électoral même même sans même sans fichier parrainage dañuy dem déposer conseil constitutionnel kon yow xam nga ne doo am fichier. kon pourquoi tant pourquoi tout ce combat maanaam pourquoi énergie bi yëpp nga ko yàq pourquoi pour lan en tout cas c'est-à-dire que nu mu tudd sax euh, condamnation deux ans de prison par contumace euh, Benno Bokk Yaakaar ñi la yoral mais sa waay nañ sóoraale loolu en tout cas bokk na ci li nga xam ni moom lañ war a laaj candidat bi au-delà de fiche de parrainage bu manqué

donc jaa ngeen ñu ñëpp dugal pub rek après ñu ñëwaat incha allah. Time, c'est une émission qui va vous apporter chaque matin une dose d'énergie positive avec des invités captivants et des actualités fraîches. Commencez votre journée avec nous pour un réveil qui stimule l'esprit et éclaire votre journée. Rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 9h30 sur Batu TV TV. une émission bu TV ak seen émission bi Café Time à euh, lay ami altine samedi bu 8h jotee japp 9h30 fi ngeen koy ñu ngi Time, c'est une émission qui va vous apporter chaque matin une dose d'énergie positive avec des invités captivants et des actualités fraîches. Commencez votre journée avec nous pour un réveil qui stimule l'esprit et éclaire votre journée. Rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 9h30 sur Batu Deug TV. une émission bu TV ak seen émission bi café time euh, fii lay amee altine samedi bu 8h japp 9h30 fi ngeen koy amee ñu ngi len ci xaar. Time, c'est une émission qui va vous apporter chaque matin une dose d'énergie positive avec des invités captivants et des actualités fraîches. Commencez votre journée avec nous pour un réveil qui stimule l'esprit et éclaire votre journée. Rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 9h30 sur Batu TV TV. une émission bu TV ak seen émission bi Café Time euh, fii lay Altini, altine samedi bu 8h joti euh, jàpp 9h30 fi ngeen koy ñu ngi dans un parcours vibrant de possibilités, suivez le parcours épique des jeunes. Découvrez l'univers captivant où chaque moment compte, l'univers des jeunes une nouvelle émission sur Bartdeg TV. Êtes-vous prêt à plonger dans l'intrigue de la jeunesse C'est avec votre sister Wallis sur Bartdeg TV, la première chaîne républicaine. alaikum wa Sénégal alaikum la jeunesse man Wallis maa ñëw indi leen émission bu bestak l'univers des jeunes mu nek émission bo xamante nak ñu fas ko waxtaanee ay ponk yu am solo fi ci Bartdeg TV Xar leen ma inshallah rabbi dans un parcours vivant de possibilités, suivez le parcours épique des jeunes. Découvrez l'univers captivant où chaque moment compte, l'univers des jeunes. Une nouvelle émission sur Batdeg TV. Êtes-vous prêt à plonger dans l'intrigue de la jeunesse C'est avec votre sister Wallis sur Batdeg TV, la première chaîne républicaine. Bon, je suis de vous une nouvelle fois mais je vais je vais clarifier bien situation bo xamni euh nu mu sax euh, da fee am donc euh mu tudd sax euh, c'est par rapport ak euh, nous mu sax ben ben ben affaire bo xamante ni gis naa ci Facebook bi ñu bind Omar Sey président de la fédération africaine de surf propriétaire du restaurant Surfer Paradise situé sur la corniche des Almadies vient d'être arrêté injustement par les éléments de la DESCOS. Ça, ça a été publié hier. Donc, après plusieurs tentatives d'intimidation, de pression, de menace. Donc, je reviendrai sur un live pour expliquer les détails de, son arrestation arbitraire. Et vous venez de voir, je pense que Amgen Image Donc, Omar Sey, président de la Fédération africaine de surf, donc une publication de donc euh, donc voilà donc président de la fédération africaine de surf donc propriétaire du restaurant Surfer Paradise donc situé euh, sur la corniche des Almadies vient d'être arrêté injustement par les éléments de la DESCOS après plusieurs tentatives d'intimidation, de pression, de menaces. Je reviendrai sur un live pour expliquer les détails de son arrestation arbitraire. Bon voilà, mignon. vous nga genre publication yu il faut que Nous, quand même euh, ñëw leeral ko parce qu'il n'y a jamais eu arrestation bon moment moom bu muy bind il n'y a pas eu d'arrestation il y a eu convocation de la DSCOS euh, litige bi nag problème bi mi ngi am ci euh, moom diggante moom ak koo xamante c'est un général ñu général Mamadou Mbeng donc mu am ci ben terrain bo xamante numéro 60 foofu ci ki nga xamante ni moom la wax mu nekk ci nu mu tudd sax euh, ci ci ci ci nu mu tudd sax ci euh, fi ma leen wax léegi muy ci nu mu tudd sax euh, corniche des Almadies bon voilà maintenant man li ma ci bëgg leeral juste par rapport ak li ma leen wax y a pas eu d'arrestation convoqué woon nañ ko maintenant s'il ne répond pas à la convocation il pourrait être arrêté par la DSCOS mais à ce que je sache aussi am na benn mbir boo xam ne déclenché woon nañ ko mu nekk waxtaan boo xamante ni DSCOS balaa muy arrêté kenn ak muy indi problème kenn te ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay donc ñoom dañ lay njëkk convoqué ba pare déglu la parce que mbirum suuf au fait ay këyit la yow boo ne këy kër gii man maa ko moom wala maa ko occupé wala nangam wala diw ak diw ñoo ko occupé da war a génn këyit yi firnde ni yaa ko moom ci loolu laa jëm pour ma leeral leen pour ma leeral leen ce qui se voilà donc ma leeral leen pour ma leeral leen ce qui se ce donc voilà donc bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo donc li ma leen nii la état du Sénégal Moko le général Moumoudou et ça c'est en 2007 donc bien avant le développement au pouvoir bien avant ça, ñuy wax en 2007 donc mu jot attestation de propriété le 8 février 2011 Donc, ba donc mu attestation de euh, propriété 2011 donc euh, République du Sénégal ministère de l'Économie et des finances direction générale des impôts et domaines, direction de l'enregistrement des domaines et du timbre, le directeur, numéro 00098 98 sur DGID sur DEDT. Donc Dakar, le 8 février 2011, mon Donc Dakar, le 8 février 2000, 2011, mon donc il lui a été remis. Le directeur de l'enregistrement des domaines et du timbre sous-signé, l'enregistrement des domaines et du timbre MOI DEDT donc sous-signé atteste que la commission de contrôle des opérations domaniales MUCCOD, CCOD au cours de sa séance du 26 juillet 2007 affaire numéro 54 a émis un avis favorable à l'attribution au profit de monsieur Mohamedou Beng d'une dépendance du domaine maritime situé sur le littoral objet du lot numéro 20 d'une superficie de 500 mètres carrés est destiné à accueillir une maison à usage d'habitation. En attendant la fin de la procédure de déclassement, d'immatriculation au nom de l'État et l'approbation du contrat de bail y afférent, la présente attestation est délivrée à cet effet pour servir et valoir ce que de droit. Cette attestation annule et remplace celle, de 28, celle numéro 2867 sur MRF sur DGID e du 16 octobre 2008 en raison d'une erreur sur le lot donc signé Vincent Max Bidi. Donc ça, c'est le 8 février 2011. Voilà. Donc, c'est oh, mon passe mon Ken, ken, ken, ken, ken, ken. Bon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, euh, nu sax ça c'est le 8 février 2011 mais maintenant je vais vous présenter le plan de la situation donc euh, non arrêté d'occupation arrêtez d'occupation donc arrêtez d'occupation bi sommes euh, tous le ministère des finances et du budget arrête donc donc je pense que ko amul ma yónnee la ko nga format image donc am nga ko. Hmm? non xaaral ma yónnee la parce que ak gars yi moom wax rek du ci bon surtout moi en ce qui concerne ces choses là il faut il faut il faut il faut nga il faut nga voilà il faut nga nga nga war leen ko ba mu leer voilà il faut nga wal leen bam leer donc ça c'est le 14 février 2022 numéro 002834 du Sénégal autorisant M. Mohamed Mbeng à occuper à titre précaire et révocable un terrain de domaine public maritime formant le numéro 20 situé à Dakar d'une superficie de 500 mètres pour un usage d'habitation le ministre des Finances et du Budget vu la constitution ba mu jeex visaille article 1er, M. Mohamed Mbeng né le 21 février 1959 à Dakar titulaire de la carte d'identité numéro tel tel tel en application des articles 10, 11 et 37 de la loi numéro 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État est autorisé à occuper à titre précaire et révocable un terrain du domaine public maritime 6 à Dakar d'une superficie de 500 mètres carrés. Article 2. La dite parcelle ne pourra être ni vendu, ni sous-loué sous peine de retrait, sans utilisation préalable et écrite de l'administration. Article 3. Le renouvellement de la présente autorisation d'occuper se fera par tacite recondition à la fin de chaque année. En cas de désistement, le concessionnaire devra en faire la déclaration au plus tard, trois mois avant l'échéance. Nous continuons. Article 4. La présente autorisation ne pourra en aucun cas dispenser le concessionnaire de formuler une demande d'utilisation de construction conformément au code de l'urbanisme. Article 5, redevance. Pour compter du 1er janvier de chaque année, le concessionnaire devra verser à la caisse du chef du bureau de domaine d'Angor, Almadi, en une seule fois, une redevance de 375 000 francs CFA. Article 6. La redevance fixée à l'article précédent pourra être révisée par l'administration un mois avant l'expiration de chaque année d'occupation. En outre, en cas de modification des dispositions du décret numéro 2010-399 du 23 mars 2010, les nouveaux taux seront automatiquement appliqués à compter de la date de publication des nouvelles dispositions au journal officiel. Article 7, cautionnement. En garantie des prescriptions qui précèdent le concessionnaire est tenu de déposer dans les caisses du chef du bureau de domaine de Ngor Almadi un cautionnement de montant égal à une année de redevance, soit la somme de 375 000 francs CFA. Article 8. Le concessionnaire devra mettre en valeur le terrain suivant la vocation du secteur dans un délai de deux ans. Article 9. L'inobservation des dispositions susvisées entraînera le retrait sans préavis de l'autorisation accordée. Article 10. En fin d'occupation ou en cas de retrait, ce cautionnement pourra être remboursé au concessionnaire sur présentation de procès verbal d'état des lieux dressés conformément par la direction de l'urbanisme et de l'habitat et de la direction des impôts et de domaines. M. Mohamedou Mbeng devra remettre les lieux dans l'état primitif si l'administration le requiert. Article 11, le directeur général des impôts et domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera ainsi publié et communiqué partout où besoin sera donc fait à Dakar, comme nous l'avons dit, donc le, le, le, 14 février 2022. Donc, nous donc li ma indi li moy buñ taxawé donc voilà donc sangam je prierai Omar Sey bi nga xam publier mu indi des documents yu par rapport à ce lot numéro 20 à ce lot numéro 20 parce que aussi dafa yomb nit ñew dal nañu ak busso kër go xam ni bako di am mu bëgg taxaw bi ko presse war Sénégal au fait est-ce que maintenant, à chaque fois qu'un officier de l'armée, à chaque fois qu'un officier de la gendarmerie a un droit à un cœur, a un droit à un terrain, après avoir, après avoir servi ce pays pendant des années, deux semaines, bakkan tay la mu jaar procédure normale dem 2007 mu am këyit di xaar pour am autorisation dugal yoo mairie ba ñu ñu ñu tànc ko mu toog moom en tant que officier de la en dit que officier général toog toog procédure bi dougal ay këyitam ngeen ne loolu du fi am bu naree am ñu génn def porte presse woo presse bi wax lu la neex loolu moo jeex Sénégal parce que ñun nous sommes là pour ça et nous lui ouvrons les portes hein, Omar Seye moomu bu nekkee ni il a des papiers contraires ak li li général bi yor na ko génne bu nekkee loo numéro vingt boobu moo ko moom na ko génne ak ban ana lañ ko jox kayit bi loolu dafa war a leer mu war a jeex Sénégal loolu ñaar la ñetteel bi mooy man samay preuve dafay maanaam damay teg lu leer comme midi bon on continue gis ngeen dama ne wan état d'avancement li nga xamante ni moom mooy euh, comment dirais-je moom mooy moom mooy li fi li li fi gars yi bëgg def bon voilà euh, je pense que yone naa la yónnee naa la euh, yëpp yëpp yëpp yëpp donc da nga koy teg gars gis ko bon yónnee naa la ko démb saa kii ci yi plan kii ah ok d'accord ok donc voilà renvoyé renvoyé waat ma ko pour mën ko am fii bu ngeen seetloo donc <laughs> bu ngeen seetloo. yaayu Cheikh tey ngaa génn laaj moom du fi dégg lu baax ginnaaw vous êtes allergique à la vérité donc voilà donc euh, mi ngi donc renvoyé ba plan donc euh, voilà donc euh, dama leen di tout au début nous mu tudd sax manion, manion, mañoon laay géej naal dugal par rapport ak li nga xam da ko am mu nekk liggéey bu ama am solo bo xam l'activiste républicain mañoon laay géej mi ngi ci wax dëgg yàlla nekk ci góorgóorlu bu ama am bu ama am solo donc maintenant balaa may tàmbali dama leen di au début mom mi bind lolu mune moy président chef Paradise la xawma mbir mi fan la commencé ba pare dama leen njëkk wan euh, euh, carte bi ba pare plan bi nga xamni moy plan plan d'ensemble bi nga xamante ni mom mom mom moom moom moom moo war a leer c'est-à-dire que pour nit ñi mën ko comprendre bon voilà donc pour nit ñi mën ko pour nit ñi mëna comprendre li may wax lan la donc fan la fan la fan la wax ji ko donc voilà plan de situation bi mom la ni wan ni bi bon voilà donc plan de situation bi ngeen gis noonu bu ngeen boo ko zoomé di nga gis fi ñu def 20 di nga gis fi ñu def 20 ngeen xool position moom fi fi mu nekk kër gi fi mu nekk voilà gis ngeen ko léegi ñu tàmbali nag ñu dem ci plan bi ci ci plan yi ñu xool depuis ci tàmbali bi nag maintenant kan moo fekk ji moromam kan moo fekk ji kan moo fekk ji moromam ci li ngeen di gis nii au fait ci li ngeen di gis nii au fait bii donc bu ngeen xoolee nga zoomé ko. dañu ne wan point bi nga xam ne mooy surfer paradise léegi point bi nga xam ni mooy surfer paradise fi mu nekk présentement dangeen koy gis zoomé ko ñu gis point bu rouge bi fi ñu bind surfer paradise foofu la tàmbalee moo nekk nii gis ngeen ko fii xam nga amagul dara waa ji wax ne dañ ko àtte ñàkkal fii la nekk au au fait cest fii la nekk xam ngeen loo bi amagul dara loo numéro 20 mooy nekk fii moom fi mu fi mu moom moo nekk nii loo numéro 20 moo nekk nii donc gis ngeen ko

donc mom day continuer di avancer donc on continue bu ba légui pour mu clair Oui, hein. Ah, pour mu gëna clair gis ngeen Vous donc ba légui mom tabaxna xam nga fi gën na avancer donc keur keur général mo gis donc on va continuer on va on va continuer gis ngeen l'occupation maintenant fi lay éclairer. Fi lay éclairer mom fekk mi fekk ba

gis ngeen parking bi tabax na yëfu jàmm li général bi jàpp ne moo ko moom tabax na ko gis ngeen donc fii la moom tabax na fii maintenant waa ji nag moom amul sañ-sañu dem ne li ma moom dama koy jël tabax ko maintenant yow nee nga d'accord Descos woo na la nga génn def sa publication ne il a été arrêté il n'a pas été arrêté il a été convoqué par la Descos pour mu leeral moom mu indi ay kayitam le général indi ay kayitam ñu def confrontation kan mo jitu kan fi ak kan mo njëkk am këyit kan on a voulu en faire un problème avec le comité national olympique bëgg ci duggal mbiru sport parce que bu ngeen xol la publication la publication mom bu ngeen xol la publication liñu ñu moy ay drapeau yo xamanteni ki affaire CNOSS la affaire maanaam comité comité olympique la bëgg ko def combat sportif ça n'est pas un

Euh, te ba léegi tëjul ma ko buntu yi de li wax bu nekkee d'accordu ci mënu ma yone kayit wala mom bu dem ci presse dox len kayit yi mu yor mbir dafa yop c'est-à-dire si si lima ma wax nii y a une part de mensonge mom Omar Sy na jël kayit yi mu yor mu yóbbu ko journal bi mu wul ñu génne ko mom général bi jël kayit yi mu yor ñu yóbbu ko Sénégalais mëna xam motax mo gën ñu génn bind Omar Sy président de la fédération africaine de surf propriétaire du restaurant Surf Paradise on n'en discute pas, es sur la corniche des Almadies, vient d'être arrêté injustement par les éléments de la DESCOS. Il n'a pas fait mention qu'il a Et il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a pas eu d'arrestation. Donc, il faut l'air. Donc, il fallait que je clarifie pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais, Donc, ce je veux dire, c'est que, fi la neex un citoyen sénégalais bi nga tu te réveilles le matin, tu es près de ta famille, tu manges à ta guise, tu vis à ta guise. Des hommes qui ont servi ce pays. Nous avons son excellence, le président Macky Sall. Tu traitement ma vie xam les militaires invalides Voyez je suma classe 18 Ça sama invalide yi 2 millions 5 millions ku mais en tout cas le président Macky Sall militaire invalide traitement bi vie entre 2 millions et 5 millions Sall Je jërëjëf yàlla na yàlla mais ñooñu ils ont servi ce pays ils méritent plus Sénégal buñ xamone ce que ces gens subissent du matin au soir en servant leur pays avec patriotisme dignité et loyauté tey jii bu ma ñëwee Sénégal, ouvre ses portes ci ben femme bo xamné ne kenn xamul fo bayé ko kenn xamul yaay kan une certaine dame si c'est. man je veux pas attaquer souvent les femmes mais da nga ñew tok ne nga yow da nga doon di jox armée ay hélicoptère ak ay armement ay ay blender ay blender ay yu luur ak yu dem noonu mais yow genn bi nga genn diko wax Sénégal rek motax yow armée waru la jox dara ci marché parce que téwo sa làmmiñ l'armée nationale la la gendarmerie nationale la police nationale notre douane nationale suñuy mbir comme mettre ay ñoom ça à dire que c'est pas des choses qu'on est sur la sur sur la sur la sur la voie sur la voie publique ñun néwuñu ci bëngaloo on n'est pas dans la toundra on n'est pas dans la savane nous sommes dans une république et il faut que l'état sévise pour que ku le lu mel noonu fin et c'est comme ça si aujourd'hui l'état du Sénégal avait fait comme au Tchad ce qu'on a fait avec succès Masra billahi wallahi on n'en serait pas là il faut sévir ne article code de pénal code de régler les problèmes il faut il faut écarter la bonne graine de l'ivraie on est en train de comment dirais-je ñu ngi sànq suñu ngi ma sur le Coran kon d'ailleurs, en un moment donné l'État a jël ay responsabilités am Moussa Diop ma yëgal leen dire, ba léegi nga vie, léegi duma soli damay daal di woo ki nga xamni moy suma su ma a par rapport ak li nga xamni da koy organiser donc inshallah, taala donc bon voilà donc mom mu leral bon voilà je pense que je vais mettre au parleur Sénégalais yi mën a dégg euh, mu nek ci am solo. vous n'avez pas assez de crédit pour appeler. ah ouais, mañoon wooteel Il moom gàcce la <laughs> mañoon wooteel si que yaa may dégg. Euh, tu peux appeler bon voilà donc mën nga woote euh, ci numéro bi Inch'Allah. c'est pas euh, donc bon voilà donc mañoon mën nga woote ci numéro bi ah lii moom sama noon yi dañ am lu wax rek way way way way donc mañoon mën nga woote ci numéro bi ma la joxoon sànq bon voilà donc euh, moom mu wax leen li nga xamante ni du ma ci sori damay bàyyi rek euh, Régis tegal leen une toute petite vidéo en attendant que moom mu moom moom moom mu voilà. Depuis le 1er janvier 2020, Sen'Eau est en charge de la production et la distribution de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal. Alaji mañon jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan yàlla suma kàddu yàlla na fekk fi na fekk ci amin ya rabbi amin amin amin amin ñu ngi lay ziar ñu rappelé ne activiste républicain nga dëgg la waaw ngaa ngi nekk caaray nekk def liggéey bu ama am solo ñu bàyyi nga présenté wu ci followers yi yalla ma doon lay euh di activiste républicain. hmm waaw dëkk mhm. eh, Thiaroye Gare. nekk nag nga xam ne da ngay xeexal suma réew. hmm di ko taxaw effectivement. Ya. waaw. hmm ya. donc mu mel ni eh, da ngay waajal par rapport ak li nga xamante ni moom mooy ya, fête yu jëm nii. mu mhm. eh, mel da ngay waajal benn événement ñu bàyyi la nga wax ci événement bi. waa événement bi eh, ñu ngi ci ñu ngi ci bëgg a wax nit nii dañ ci dañ ciy teral eh, ñi nga xam dañu néew doole xam nga ku wax banlieue mm-hmm. ku wax banlieue rek xam nga li faam mooy mm-hmm. nit yi na nit ñi nga xam seen loxo joxul seen ginnaaw mm-hmm. rawatina xale yi nga xam ne seen waajur yi dañu génn àdduna ak ñi nga xam ni tamit seen parents yi tamit eh, benn waat daal li mënuñu wax lépp mais ñuy dund dund bu doy waar ma dëkk fa nag xam li nga xam ni moom la nit ñi di dund ak seen njaboot. mañoon mañoon ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne da ngay xaw a sori tuuti live bi live bi ngay déglu da ngay wàññi da ngay wàññi son bi. ah d' accord d' accord. da ngay wàññi ah, son bi waaw ok waaw. ok bismillah. d' accord mm-hmm. waaw. mais xam nga di loolu noonu moo gars di ko fa dund. Mm-hmm. ñu koy dund dund bu metti ak euh, suñu ay jarbaat suñu ay ay frères yu nga xam ni. ak suñu ay doomu ak suñu lépp ñoo xam ne xale lañ mënuñu dara. Mhm. mais bu feet jotee. Mhm. dañu imaginer nii boo duggee au niveau du centre ville. Mhm. presque bëriwaat na ñi nga xam ne seen papa day liggéey ci administration yëpp. ku ci nekk bu feet jotee da ngay gis papa ànd ak papam. mu dem utili ko cadeau Noël xam nga booy di xeexoo fii di bëkkantee ko def yenn yi. man nag dem si ma jël si benn initiative ma ne non euh, comme que li am na mais man je préféré. ma dem ci ñi nga xam ne ay seen papa yi dañu néew doole ak jirim yi. Mhm. ak euh, ak mhm. waaw. Mhm. Euh, daaw nag moo nekkoon suñ première édition daan naa ko def mais daaw ma ko woon daaw ma ci doon def cérémonie. cette fois ci nag léegi daaw ñu def première édition bi ak cérémonie. Euh, ren gi nag ñuy dem ci deuxième édition bi. ñu ci woo ñëpp. di woo bépp activiste ak képp ku dul activiste te ku nga xam ne jóg na pour. dimbali woy néew bi doole rek. Mhm. nga ñëw teg ci loxo. ok waaw xale yi nag moom xale yi dañ leen dañ leen fas yéene bégal. Mhm. te bégal bi ñu leen bégal nag. Mhm. nekkul liggéey pour xaalis lañ ci soxla pour bu dugg suñu poos déedéet. waaw dañu bëgg rek képp ku nga xam ne am nga yéene ñëw. pour euh, dimbali xale yooyu nga ñëw soo ñëwee jox ñu kado yi. dañ koy tegaat ci loxo xale yi nga xam ne ñoo fay teew. incha allah. daaw daaw. daaw tolloon nañu ci cent la waxoon lañuy jël. mais mhm. dañu dem ba ci jour bi affaire bi ëpp ñu doole. Mhm. ñu dem ba ci cent cinquante. Mhm. waaw ñu dem ba ci cent cinquante. waaw ci loolu daal euh, ci lañ nekkoon mais yàlla dimbali tamit ñu defal ñu ci sutura. waaw ci ndimbalal euh, Lat Diop. Lat Diop dama koy wax. Lat Diop bu Guédiawaye ministre ministre ministre sport. waaw wax dëgg yàlla daaw daf ñu daf ñu jàppalee bu baax a baax a baax a baax Lat Diop dama koy wax. Mm-hmm. ak euh, suñu benn suñu frère ñu koy wax aso mm-hmm. Ansu Ansu le le le de la de Grand Théâtre. Mm-hmm. waaw Ansu. kon yéen kon yéen kon yéen kon yéen ñi ngeen di bu baax a baax. waaw. kon kon ñi ngeen di ñi ngeen di jox cadeau au fait mooy xale yi nga xam ne ay jirim lañu. waaw seen wéyjur dundul ngeen fas yéene comme fet bi aussi ñi nga xam ni amaana seen loxo jot na seen ginnaaw seeni doom yi. dañuy gis ñoom ñi nga xam ne seen wéyjur dunduñu ñu gis ñu leen jëndal ay cadeau kon yow manifestation bi daal ñi ngi ko jagleel mooy ñi nga xam ni seen wéyjur dañoo néew doole lool. wala ñi nga xam ne seen wéyjur yi maanaam dañoo dañoo ñàkk wéyjur soxla nag maintenant fête yu mel noonu ñu dimbali leen ci ay cadeau. waaw mhm. ah, léegi nag nga ciy woo nga ciy woo kullu koo xam ni kullu koo xam ni mi ngi déglu live bi yàlla may ko mu mën la dimbali numéro Mandione mën naa la bàyyi nga wax ko ñu ñu wala directement ñoom ñi nga xamante ni aussi am na ñu yéene euh, maanaam dimbali xale xale yi ci ay cadeau donc du mbirum xaalis sax mais ku bëgg jënd cadeau mu jënd cadeau donc woo la incha allah jox la ko pour nga mën a dimbali ñi nga xamante ni ay néew doole ak seen ju dund. amul benn problème amul benn problème mën nga joxe sa numéro directement ñu ngi koy dégg. waaw sa waaw sama naa ko joxe. waaw nañ commentaire ko ku 941. Mmh. 13. Mmh. 02. 77. 941 13 02. voilà quand gars yi yéen a ko déggandoo ku bëgg jàppale xale yi ci événement yi nga xam ni association bi nag euh, association bi mi tudd servir l' enfant. servir l' enfant. waaw servir l'enfant. enfant. Masha allah mhm. waaw mais cette fois ci daal encore tamit euh, ren gi yàlla def na tamit. Euh, ñi nga xam ne ñooñu taxawoon daaw comme ku mel ni ki ensu Ansou mm-hmm. Sané bi nekk euh, muy directeur de le DG de Grand Théâtre mm-hmm. ak euh, le ministre Lat Diop mm-hmm. encore ñu ngi leen di woowaat ci bis bi taxawaay buñ ci taxawoon daaw ren ñu ngi leen di ñaan ñu gën ci taxaw incha allah waaw ñu ngi koy dégg waaw ñu ngi leen ci tax ñu ngi leen di ñaan ñu gën ci taxaw di fàtte maa ngi parte sax di wax sama sama xarit sama xarit muy le ministre Euh, Antoine Félix Abdoulaye Dione. Mhm. waaw le ministre ministre pétrole gaz. Mhm. waaw Antoine moom euh, xaw kan mais yaakaar naa ci moom laa war a njëkkee parce que moom la ma ñëpp xamee. Mhm. mu nekk suma xarit. waaw maa ngi tamit woo euh, Ablaye Diop DG de la COSEC. maa ngi woo tamit Mountaga Sy. DG du maa ngi koy woo. di woo tamit euh, le DG Momar Mada Fall. Mm-hmm. Euh, DG centre traitement de Dakar maa ngi koy woo ci bis bi. Mm-hmm. di woo tamit euh, son adjoint. Mm-hmm. muy madame Assou Thiam. maa ngi koy woo Assou Thiam mu doon ku nga xam ne depuis boobu ba léegi bu mu yéegee affaire ba léegi bu ñu chaque jour mi ngi ñuy laaj ñu soññi bu affaire yi toll lan ak lan foo leen tolloogun foo leen tolloogun foo leen toll ci affaire yi. mu doon. mu doon jigéen bu nga xam ne ci social rek lay dox. Mhm. Mhm. mu mënoon mënoon na taxaw ni kat ab directrice la kese la directrice mhm. kese la mais du ma fi nekk di sonn ci affaire sociale yi mais nekk na jigéen bu bëgg social. ñu ngi ciy woo tamit autorité autorité autorité Pikine yëpp. vraiment am tey caaro ci département bi la bokk. encore tamit na plus particulièrement que suma maire. le maire de Thiaroye Mbaye Sène di ci woo le maire de la ville Abdoulaye Timbo le maire de Mbao Abdou Karim Sall le maire de Djidda bon waaw Djidda Thiaroye kaw Modou Gueye après en fait tamit ñu ngi woo tamit euh, Modou Gueye hum, effectivement waaw Modou Gueye tamit ñu ko ci woo bu baax kon jërëjëf euh, numéro bi mooy 77 941 13 02 muy euh, li nga xamante ni mooy journée de l'enfant enfant maanaam servir l'enfant enfant ki koy organiser nekk Mandione Laye Gueye nekk activiste républicain donc mi ngi am ban bis Euh, le 24 décembre. incha allah. waaw le 24 décembre moom soo génnee ci gaaru terre bi rek après da ngay jàkkaarloog euh, manifestation bi. waa ji nee ma Baye Samba Dieng nee ma wool patriote yi ñu jàpp ci <laughs> damay ragal ñu ñëw li ñu war a jox xale yi ñu jël ko donc jërëjëf ma ñoon euh, sant naa la gërëm la incha allah. d'accord jërëjëf jërëjëf maa ngi maa ngi kontaan. jërëjëf maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan. maa ngi kontaan ci bi maa ngi kontaan ci dalal jërëjëf jërëjëf a a baax ngeen ñaanalal ñu tamit euh, suñu monsieur le maire Mbaye Sène mhm. mu nekk euh, jeune. un jeune très engagé waaye. un jeune euh, et puis militant militant militant première heure. Mhm. waaw Mbaye mhm. waaw kooku moom mënuma ko bañ a tudd. di jaajëfal en même temps Baye Diop Baye Diop ñoom Pape Gorgui Ndong ñoom voilà donc. waaw. donc jërëjëf jërëjëf ah. kontaan naa trop. inshallah taala donc après on se capte joxe numéro bi kuy kuy directement donc 77 941 13 02 jërëjëf magnon contane donc ci euh, ok merci Jeff donc ci information yu aussi nous euh, rappeler ni le premier ministre Amadou Ba donc ngeen balma tay là laaj bi lool mais du suñu sago mais le premier ministre Amadou Ba tay tamit euh, ma nga won fe nga xamanteni ni moy euh, nous mu tudd sax euh, di doon def inauguration euh, bu ama am solo bo xamanteni donc voilà donc yalla nañu ñëwaat ci donc inshallah pour leral ko donc je pense que envoyé woon naa le premier ministre Amadou Ba donc ce jeudi nous mu tudd sax a procédé ci li nga xamanteni mom moy l'inauguration du centre régional des urgences de l'organisation mondiale de la santé OMS à Dakar ce centre est situé à Diamniadio qui va améliorer la gestion des urgences sanitaires en Afrique aussi bien dans la qualité que dans la promptitude des réponses aux épidémies donc premier ministre euh, Amadou Ba qui liggéey bi nga xam son excellent président Macky Sall mi ngi koy liggéey mu nekk liggéey bu mucc ayib kenn du wax ci santé donc tey jii jëwriñ ji njiitu donc tey ci alxames inauguré na centre régional bi nga xam moom lañ jagleel urgence la mais de organisation mondiale de la santé donc OMS fii ci Santé centre bi nag mi ngi nekk jam ñaajo moom ngeen gis noonu muy ci ci ci vidéo bi donc jam ñaajo la da fay nek ñëw di euh, manam di jappalé africains yi dans leur ensemble ci li nga xamante moy gestion des urgences sanitaires bi ñu waxee urgence sanitaire day am lu melni ay Ebola yalla ñu ci yalla musal am lu melni Covid yalla ñu ci yàlla musal am ay épidémie nangam sangam yooyu bu amé donc jumtu ka yi ngeen gis ni muy feeñ président Macky Sall tabax ko ginnaaw bi nga xam ne tabax na siège Nations Unies foofu nga xamante ni moom mooy jam ñaajo nga xam ni ubbil na ko Nations Unies ubbil bi euh, nga xam ne mooy étoile bi Senghor defoon ci digg drapeau bi muy l'ouverture du Sénégal par rapport au reste du monde président Macky Sall moo ko à travers la Maison des Nations Unies, mais aussi aujourd'hui à travers le centre régional des de l'organisation mondiale de la santé OMS vous n'êtes pas ca fee Diamniadio kon ku sa vision ne dépasse pas Diamniadio mais sa vision de mel ni fi nga xam lancer fusée xam nga fusée tu l'impression comme le fenêtre mais du bas on transcende ou bien du bas on va vers le haut donc le président Macky Sall a fait décoller le Sénégal l'a inscrit sur les rampes de l'émergence aujourd'hui notre pays marche résolument vers les rendez-vous des pays émergents et nous en félicitons son excellent le président Macky Sall lui souhaitons bon vent et souhaitons une victoire écrasante à notre candidat monsieur le premier ministre Amadou au soir du scrutin du 25 février 2024 à toute la coalition Benno Bokk aussi Inch'Allah, taala bu boulen bu parce que la victoire est là incha allahu taala bu leen dara lëmbe wala dara jaxase seen xel ba ngeen yaakaar ni donc tey jii nii mooy loolu donc sant nañ leen gërëm leen di ñaan yàlla Sénégal yàlla yàlla def jàmm daf salaam daf fi tawféex je pense qu'on a rien oublié donc di ñaan aussi euh, nu mu tudd sax euh, euh, xale yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi yàlla na yàlla yàlla na yàlla nu mu tudd aar leen yiir leen donc activité bi kenn ma sant leen gërëm leen di leen jaajëfal une pour pour une prochaine fois wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaa jëf yéen moom neneen ci tomb di saaga rek yéen a ngi man ma aw ma seen jot bu ngeen bokk de incha allah. Time, c'est une émission qui va vous apporter chaque matin une dose d'énergie positive avec des invités captivants et des actualités fraîches. Commencez votre journée avec nous pour un réveil qui stimule l'esprit et éclaire votre journée. Rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 9h30 sur Batu TV. TV. une émission bu bees amis, Batu TV ak Sen Bok, émission bi Café Time euh, filay ami altini diap samedi bu 8h joti diap 9h30 fi ngeen koy ami ñu ngi len dans un parcours vivant de possibilités, suivez le parcours épique des jeunes. Découvrez l'univers captivant où chaque moment compte, l'univers des jeunes une nouvelle émission sur Bartdeg TV. Êtes-vous prêt à plonger dans l'intrigue de la jeunesse C'est avec votre sister Wallis sur Bartdeg TV, la première chaîne républicaine. alaikum wa Sénégal assalamu alaikum la jeunesse man Wallis maa ñëw indi leen émission bu bestak l'univers des jeunes mu nek émission bo xamante nak de ñu fas ko waxtaanee ay ponk yu am solo fi ci Bartdeg TV Xar leen ma rabbi depuis le 1er janvier 2020, Seno est en charge de la production et la distribution de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal. Seno, l'excellence pour le Sénégal, une référence pour l'Afrique. Une vision qui se décline sous six axes stratégiques. Donner l'accès à l'eau à tous. Assurer un service d'excellence. Garantir une performance durable faire rayonner le service de l'eau grâce au centre d'excellence, réduire notre empreinte environnementale et énergétique, accompagner la carrière de tous, surtout celle des jeunes et des femmes. Après seulement trois ans d'existence, le défi d'une eau de qualité en quantité suffisante a été relevé grâce aux innovations mises en place par la seine et aux nouvelles infrastructures portées par l'État du Sénégal. 98% des Dakarois sont alimentés 24 heures sur 24 avec 260 millions de mètres cubes distribués en 2022. Seno, c'est une exigence. Nos équipes ont relevé le défi de la qualité avec une surveillance continue de la ressource au robinet des clients pour le respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le laboratoire mobile Seno de Ziguinchor a rendu autonome la partie sud du Sénégal pour garantir la surveillance de la qualité de l'eau. Tous les ans, plus de 15 000 échantillons d'eau sont prélevés et analysés sur l'ensemble du Sénégal avec un taux de conformité en bactériologie de 98,8% et en physico-chimie de 99,7%. L'eau est la denrée la plus contrôlée au Sénégal. Seno, c'est l'innovation grâce au déploiement de deux outils d'aide à la décision. Au point B, pour la supervision de tous les sites de production et du transport d'eau du Sénégal. À Anne, avec le centre Visio, pour la gestion de tous les réseaux de distribution. Grâce à la régénération de plus de 90 forages pour un gain de 15 millions de mètres cubes en 3 ans grâce à la refonte de l'usine des eaux du point B avec le renforcement des pompages vers les mamelles, le renouvellement et l'installation de nouvelles vannes stratégiques pour assurer la maintenance sans arrêter l'usine, la sécurisation de l'alimentation électrique et grâce à ces innovations, le niveau de disponibilité des usines a ainsi atteint 98,8%. La relation clientèle continue sa transformation avec Arsène Eau qui a permis de digitaliser la relève, géolocaliser les compteurs, rendre plus accessible le paiement de factures, co-construire avec les associations de consommateurs la nouvelle facture plus simple et facile à comprendre, développer une agence clientèle 100% digitale, Nofly, avec la modernisation des agences de Yoff, Kaolac, Petite Côte et l'ouverture d'une deuxième agence à Rufisque. L'enquête de satisfaction réalisée montre que 82% des clients boivent l'eau du robinet et 62% sont satisfaits de la qualité de service fournie par Sen'Eau. Sen'Eau, c'est l'excellence. Grâce à notre centre d'excellence, nous sommes un partenaire engagé pour accompagner les universités sénégalaises à travers la recherche notamment sur la qualité de l'eau du lac de Guière, soutenir les acteurs majeurs de l'écosystème startup participer à des travaux scientifiques pour la préservation des ressources. Seno, c'est l'avenir. Depuis février 2021, une formation diplômante et gratuite a été lancée, le Cap Canalisateur Réseau Eau Potable, en partenariat avec le CSFP BTP de Diamniadio et le 3FPT, l'École des plombiers, ambitionne de former d'ici 2025 250 jeunes de 15 à 20 ans, peu qualifiés, en abandon scolaire et sans distinction de genre. Chaque jour, c'est 1200 djambas, des partenaires techniques et institutionnels qui font de Seno l'excellence pour le Sénégal et une référence pour l'Afrique. Seno, haut du Sénégal.